yaara ngam fan tooñeele ah ku ñàkk xel dina xam ne ndaxte man dama tooñ suma bopp baadañu min nataali waa ah mu ne ko lu lu ñuy lu Abdul Bari def def ala yaa so wala yaali kunindi su fekkee yàlla may na ko loolu moo leen laali naata ala ba fala al dan Abdul Bari ya su ngeen ñëwee ci yàlla yàlla dafa leen dem leen ci Abdul Bari da Abdul Bari kaañan tan demale Abdul Bari doy na ma den daat tol te wili la waaye su fekkee fu dunu Abdul Bari yéen du ngeen jóg kaañan demale moom doy na ma naata raa tan de bu doon Abdul Bari at tol te wili la kon yéen du ngeen jóg jinga ci lewtu nañ bàyyi suñu xel bu baax mbémin ko nga taay mu ne ci luñu ci tem bi daal lañ ci dem ku ne man harrama zinata allah mu ne qul man harrama zinata allah alladi akhrajaha alladi akhrajaha akhraja li ibadihi akhraja li ibadihi والطيبات والطيبات من الرزق من الرزق والطيبات من الرزق والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا قل هي للذين آمنوا هي للذين آمنوا هي للذين آمنوا يكون دولار تجي نينا نباي سانغرا رزق ليس من الطيبات أه رزق ليس من الطيبات هرجال مرا من جفن سنونج لا لدا واي لوت ورزق لدا واي لوت سانغرا علي وندي مسولو تجي bàyyi leen jigéen yi jaambur yi di rizqun laysa min at-tayyibaat rizqun waaye laysa min at-tayyibaat amal seneyaale waaye setul lewul na ali wandi feŋ tujee bàyyi leen alali jaambur waaye naalu yaataa su ngeen ko jëlee allah silante du seen yoon rizqun laysa min at-tayyibaat kon bokk na ci rizqun min laysa min at-tayyibaat ah. wa tayyibaatu min ar-rizqi wa tayyibaatu min ar-rizqi mooy senoo ke mu ne nit na béy ni senoo fontita su fekkee lu mu béy meññ na musulmoo le yaati naa kundita a juliti ñoo tax de be mu meññ naa muuta su ñoree musulmoo le yaa naa muuta a juliti ñoo tax be mu ñor de tayibaatu min arrisqi wa tayibaatu min arrisqi fen fen naa dakiyaata lépp loo gis mu baax arjee feŋuta kaasiroo baa domoo la su fekkee ci ci effort dina ko lekk wallahi na toola mu wallahi suñu desi càlla ayen na kari le daf ñu na adaale bu la tan feeje daf daf ci daf ci bokkaale boppam rek waaye bokkut ci biri lu min na kero bi nga xamee ne jii manke ndox tawut xari jee naat war sax ñëw na de loolu maintenant keroog bi nga xam ne dilgandi man soto ndoor amut yëri dingulu moo tax ah garab yi meññ nañ de te ñor nañ biri wo soto da bu loolu amee yaalon ko ñu xam ne tooñaa jiyow ah ndax dëggantaan wala na faa warata loolu moo gën a am yéen sama jiyoti ci ndox taw iko bire way jiyo fa jiyo yiri ni wul fundandi gannaaw bi nga xamee ne ndox moom moo gën iko minnu taamu yaa domo ñi ko moom nañ ko lekk ala ko xaalisatun ah yàlla ne xaalisatun في الآخرة خالصة من في الآخرة الكالشة من يوم القيامة نقدف كبرل نمبر الله كرا سنعجي يوم القيامة إبالو يتاتي آه كافر يا لا تاتي يا فر بخمنا نعمل فل ميا دم مومن علم كيف كوفا لك كوفا ميا سيدي مومن علم كيكو أرض جلتش لا لندن تاعكون مومن علم سيدو جلتش لا ميا فني أصدر مومن علم كي أم جلا جلتش لا ميا فني أني مومن علم كنا بالك جلتش لا بس يمحج من اليوم القيامة دال جلتش مومن كبرال إيه وراولا من الجرم ياري موخ دونا من أديامولا mune imam cherno ati sey ñaw laaje mune dina ci jëf jëf juróom ñettel bi wala ko non do ñaw wala juróom ñentel bi wanda ta ñaw wala fukkel bi bari ñing waye li usulo lelmu mune dafa ay hafuru mune dafa am ay bankhas bu lolu bala mune am na ay bankhas garab la bo xam dafa am ay banxas yalla lolu la defar mo mo la tamu duniyat mune nit domi adama mo mom aduna kay moo le taamu duniyaa nit moo moom aduna kay walaatin na lool moo tax ala bu ka balan duniyaa la tiñaa la yàlla du bañ yàq aduna de kaatu ndaxte moo bu fen bu kaa tiñaa fo moo ndaxte kenn du mën a yàq aduna ku du doomi aadama rek moo ko yàq ni moomu képp koo xam ne imee sa wooso doy jaww la amuloo sa sogoo si sa noon Ijau ma sawo sote la. amur sago ci yow. balu mi ne fa wala ni koy be fam fa la ala ke sawo ke dole. waaye kero bi nga xamee ne nga ne suur nga dund aduna da ngay rey sa bopp eh, da ngay xaru yàlla dina la defal sa sago ci sa bopp. ji ko jaw yaa dunia ya kon fan sun fen ti ñaalam. mu bu bon bu gën bon ci aduna mooy yàq yëf jaamur. fansuntaw i fansun la tew yow li nga moom sa sa mbirum bopp nga yàq ko loolu mooy li gën a bon ci jikko yi wala na ala bu ka bala nga la loolu moo tax yàlla du ko dee bañ kadar yaa noole mu ne kadar man na ko di furaaya ay bàyyi pour loolu mun a mun a mun a baraata bàyyi la mu ne du ko mun a fommal adamadi wo adamadi doomu adama boo gis i ka fewu bee dadaa min na mu ne li ngay defar lépp i kee fewu bee tiñaa wole loolu la ñuy làq yépp ika fɛnw bɛɛ dada min na li ñuy defar lépp ika fɛnw bɛɛ tiɲa wa loolu la ñuy yàq yépp lu mel na caro bi nga xamee ne nabiya moo la kumoo yee dada yonent yi seen kaddu moo leen defar yee taañoolu dada mu defar seen àndandoor yi yee la musoolu dada seen kaddu yi defar seen soxna yi yele mooludeɗa seen kaddu yi defar seen nit ñi wallahi doolu sododa am na ñoo xam ne min moo ku moo la moy ñooñu dégluñ kaddu yooyu ku moo lay ñu lu dundi kaddu bi moo leen dugal wol fana la ku moo lay wol banni ah kaddu moomu moo dàq ñeneen ñi yeebay koyte du nabiya moodunoo ñoom ñu ne bañ nañ ñoom lànk nañ duñ dugg ci yonent yi ite bulala alala kiilaalu nooma duñ topp yonent yàlla ite kafuleema lee bokk ci ñoom kumakan mu ne kaddu mooy silan nit na ragal nii be tiñaa la su fekkee yaa nga yàq iteleyaaf yaa ko wax de loolu ma la sooy defaru iteleyaaf sa kaddu defar de moo la defar de yaa ko wax de iteleyaafo wax loolu la ñuy wax biri lumu min na keroog bi nga xamee ala kaa be firawna fay la baa kono yàlla ne damay sànni firawna ci biir géej gi iblisa ci yaagam mu yónni Iblisa ebal Iblisa ci kaw Firawna. akaateni Firawna e kaja. mu ne ko Iblisa demal nga waxtaan ak Ibli eh, Firawna. akaay e ngaaloon na mu baa kacandi la ñaami. Eh, Iblisa ne ko xam naa ni may waxtaanee ak moom. akaay e Firawn. mu ne ko Firawna. akaay e nga jongole soto. mu ko dafa am benn jaam ma am. wo kooku daf ne. kaa tele mun teti. moom mooy man. na fɛnwulu bɛ yan ko a t'a la mun lépp lu ma am su ma li ma bind mu ne moom moo ko moom. a ka wa jɔn la bulu. mu ne ko yow jaam boobu nga am. a ka ko a bula ji o kɔnɔ y'a fa ji. mu ne ko demal sanni ko ci biir ndox nga rey ko fa. a ka o jom façon ɲanta joola la wala ñaama mu ne ko ah, xanaa jaam boobu ah, fay façon boobu lañ ko war a fay. a ka ko ha. mu ne ko waaw. a ka safe mu ne koy bindal ma akaya ko fana ba karde lale mune ko manta medina ko garde bindal makko biraya safe bim ko binde bira bulata jiyo kono bim duge ci bir ndokh mi suhu iblisa fundita iblisa daldi genni akaya ko itele ko mu alati ah mona ko ah ya ngoog de yow ya tude sa bop ngana ya ya yalla yow yaa yàlla koy man sala siiraŋo niŋ doobaa ko a taamu mu ne toogu buur su fekkee bàyyi doolu ne ko moom moo ko moom man sa itaa fay jiyoo kono ah kon buur bi daf koy sànni ci biir géej moo la fu dada ah, kaddu boobu moo àgg ci a koy tooñaa la foy nii ah, mu ne ko ah dégg nga wax de ak li nga bon yëpp bii boo la problème oo kono loolu ci problème boobu nga nekk tey de moomoo képp koo gis e kuwoo ku bee sodo la lépp loo xam ne daf la war a dal acciloo tu i deŋo من البلاء موكل بالمنطق موكل بالمنطق ما سيبو ما سيبنا من بيب اي بو جيس نابينا لا سوي نيو مول با فلات نيني دنج كوي واخ دي نابي كيلي لا سو فكه دا فلا ورا دال نام بيتيا سو باخوت يفون لا با فلا مام بيتيا يومي اي واخ سغامي لي باخوت اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم كفى بنفسك اليوم عليك عليك شهيدا شهيدا إلى كتابه كريم من دوكو من الليرة الستير من همنا ياكل لجي muna hani malaikol me dante way malaika donte waxuñ dara sax il faut gañantale kuman foy ko muna yow sa bopp doy nga sa bopp ndax dara nekku sa kanam wala kuman fo afan ko nit ki amul dara loo xam ne jëf na ko te nekk na ci gannaawam du gannaawam la ko jëfee de ci gannaawam la ko def ku mu ne kaddu yi alee bula yàlla kaddu yoo la bàyyi e, terrain o kono ci biir terrain ayaa bula waatoo ko bàyyi ci biir waxtu yaa fo waatoo min waxtu bi nga ko waxee abe safari dañ ko bindi yaa fo waatoo waxtu bi nga waxee yaa taamañetoo la ah ñu def ko ci net bi nsifiŋo bee nakari mu ne mun nañoo war lu nekk fo nga ñimi fo ñanto nga naa fo comme moof waaye liñ fi wax munuñoo delluwaatu xam ne ñun waxuñ ko fi ndolle li yaa ñun ñoo ko wax ngaa ñi ñaata su rafetee aye nafa mu njëriñ ñu naa ma ñi ñaa su rafetut ndolle li yaa fo ñun ñoo ko wax de ñun ñoo ko wax de ndolle li ñoo ko wax de jumaa la ka jumaa dookundi ana kan mooy liggéeyloo keneen ana ko dookulaal al taa mu ne liggéeykat yi dem leen moo moo be doo kuwo la képp koo xam ne yaa ngi liggéey a yee nafa mu njëriñ la ye doo kuwo la ne min bee tiñaa la ah kon war ngaa xam liggéey boo xam ne soo ko def daf la wa daf la war a yàq de ye doo kuwo la ne xam nga liggéey min bee tiñaa la li la yàq moo maa kee kenn deful la ko ala te moo joo la yàlla du fay kenn moo la baara la fay keneen ala bee la baaroo le diilee la yàlla sa fay la lay fay نيكو مو ابي اكي مونا سونا نيت كي ديفال ابي ديادا باهنا نايا اكي سوكو ديف ني ديما اكي سوكو ديف يبيو جولا لا باي تيدي جولا يومي كو واخنا ديفال مو ديف كو مو باه موم دي نانكو فاي وا يومي كو ديغال تا ديف لوكو دون لا فاي دي اتامرون الناس بالبر اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون افلا تعقلون atamuruna an-nas atamuruna an-nas alkafu moli ko da ngeen digal nit ñi ne alke ya mari digalen digal bil birri bil birri ari ku ken dolu ke ngeen ay wax nit ñi def leen lu baax wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum da ku ken de ke lalim man alkalifa ñi nandi wala man yena ngeen fatte sen bop di ngeen digal nit ñi nañ def lu baax yeen ngeen fatte sen bop e gañi na wala yaa ngeen fatte loolu afala taqiluna afala taqiluna fal tahkilo sodola xana amulen xel ko ngir ne mooli li ngeen digal nit ñi wax leen ko ni min be moolu nafaa la li nga xam ne dafay njëriñ nit ñi a baa kono mu ngi si seen biir yéen woñantaal tol nafaa la kon war na leen njëriñ yéen tamit bere wo keta bu loolu amee e adamadiŋo la baaro mu ne doomi aadama liggéeyam jëfam i e la baaro sa jëf wala bee tiñaa la moo lay yàq i e ka min baara li ngay jëf ni womantaa siloo la su fekkee loolu awut yoon ni baaroo taata siloo la su fekkee jëf ji aw na yoon wala bee kanandi la loolu moo lay musloo a bee maakoy la moo lay jàppale dimbale la a bee faasa la moo lay tetal waati juma kañ